Mm-hmm. kii moo war a def lii xam nga tey jii nii munoo munoo ñëw orchestre taxaw nga naan pagaay jëlal ma gitaar gi mm-hmm. bu boobaa doo fa dégg dara <laughs> waaw noonu la demee nag uh-huh. liggéey boo gis rek dafa am yoon mm-hmm. moo tax bi ma ko wooyee ne ko pap lii daf ko sentir mu ne ma booy morceau bii nii lii dinaa la xamal benn affaire de euh, dina yëngal àdduna ah, mu ne ko ah na ko mu ne ma waaw mais damaa gis ne nag euh, benn instant euh, am na loo am mais man am na lu ma am mhm. dañ koy boole muy nit ku ñàkk ki ñaan bi mu ñëwee indi xam nga ma nit ma indi mu def ñu assuré mu nice mu nekk morso boo xam ne nag bi ma koy xalaat di ko bind mhm. mbëggeel la mais mbëggeel ku nekk wëy nga mbëggeel mhm. mbëggeel moom dafa bari bunt ba suba mbëggeel du dee ba suba mun naa ci woyaat leneen ak leneen mais ma xalaat fi jamono toll eh, bu njëkk da ngay nekk ak sa nijaay yow miy jarbaat buñ la nee sa nijaay ngi ñëw sax nga daw. Mhm. mais tey àdduna yàlla dafa dogal euh, fi jamono toll nijaay ak jarbat dañuy bok même génération. Mhm. da ngay gis sax jarbaat boo xam ne moom mag nijaay. moom mag nijaay tout à fait. waaw mhm. donc ma ne pourquoi pas mënuma inspiré wu ci lii. ma def morceau boo xam ne sama nijaay day wax ak man. damay bëgg nit di ko wax ndax xam nga bu da nga dem ba dëkk ak sa nijaay ci benn bo sumé yéré mu mën ko sol mm. nga sumi dal mu mën ko sol donc ngeen di communiquer yu bari wa ay morom ngeen di quoi <laughs> mm. donc mané pourquoi pas man euh créer lu melni quoi donc euh ñu créer ko pa Ibrahim tamit ñew nek sama nijaay mm. mais assurer affaire bi mm-hmm. mais bo seetloo ci bir morceau bi dafa am ben xëccoo bu fa am mm-hmm. waaw ndax euh mang koy naan man bëgg naa sax na ma ray te li indi man bëgg naa sax na ma ray damaa gis li ma bëgg ñëw di ko présenté donc comme sama nijaay la. Hmm. Euh, nijaay ci boppam. Euh, boo bëggee soxna wala dara. moom mooy dem moom moo lay ñaanale <laughs> donc ñëw naa di ko présenté. Hmm. mu naan ma kii du sa xam nga. du ñamu xale ma bàyyi yooyu. <laughs> donc mi ngi may use mais ah. use bi may use man mënuma gis. yow waaw dégguma ko. moo tax nag ma dem ba sës ne ko nijaay man bëgg naa sax. na ma mais bi mu xamee ne booy bi bëgg na nag. si la nek fofu nan ay xale foog mu xosi maak foog mu ki ak nii ma ne kii daal sama nijaay mi amna tok dof billahi wallahi wallaay ngeen ko liggéey ak beaucoup d'inspiration c'est-à-dire même même même clip bi soko ko te dégguloo limi way xam nga mm. loolu tax euh, way thème am solo parce que euh, ñun américains yi mm. amaana li way dégguñu ko mais parfois sen clip yi ñom ñoo ñuy wax liñuy way wi dëgg nak loolu nag la nga nga moom nga liggéey ci son bi clip bi soko ko seetaanee vraiment euh, c'est tellement passionnant da ngay envie seetaan ko da ngay mën ko

day dàgg sante xuloo gaay wala ni yéen da ngeen di dof doflu yéen dofu leen sax man ngeen di jéem a yuus yéen réewu leen sax dëgg day xuloo de. man soo bi su ma namee defante moom laay teg. <laughs> jël ko ci 88 628 99 90 yaa ngi ci biir allo. waaw ah, kooku Didier Koul lañ koy maa ngi nii jànn ak yow. sama góor sama xarit góor def na loolu billaay déggal lii. <laughs> Ah, kii sama chéri ah, maa ngi nii mm, mm, loolu dara fayul lii. <laughs> bu ma amee sama maa si na waaw billaay ndeysaan. <laughs> waaw mat na ko mat na ko. ndeysaan. ah <laughs> waaw maa ngi kontaan bu baax Ndiago Bala Mansa. kontaan nañu bu baax ci dugg bi nga dugg ci émission bi. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan ndeysaan ndeysaan. waaw yàlla nañu ko yàlla defal ñu ñëpp ñu am jàmm. <laughs> kontaan yow da ngaa baax dëgg la jërëjëf waaw loolu am na de. boo <laughs> noonu la demee de kookoy borom borom géejawaay. <laughs> sama jigéen sama xarit maa ngi kontaan ci yow bu baax. dama leer waaw di la wax ne nuyul ma waa géejawaay ñoom benn ah. ñoom yaa ñoom ñëpp maa ngi kontaan ci ñëpp di wax ne nag yow moom euh, euh, maa ngi lay ñaanal daal bu baax a baax. yow <laughs> merci beaucoup waaw am nga góor gu mm. baax. waaw di laay sama jigéen. ndeysaan jigéen pire. dëgg la dëgg mm. dafa baax. waaw mais nag noonu la demee nag noonu la demee dafa baax nga baax moo tax euh, nii rek la mën a demee. ndeysaan na nañu kontaan nañu bu baax a baax baax vraiment. Mm. vraiment Aïcha merci beaucoup resta à l'écoute bu ko defee rek euh, le meilleur reste à venir 88 ngay def 628 99 90 maa ngi ak euh, pagaay ci caw sa xiir. up, impose new rédaction baa ngi nii euh, ñoom itam dañoo bokk ci li ñuy def donc dañuy woy rek di joindre l'utile à l'agréable bu ko defee ñu bàyyi leen ñu tënk xibaar yi ci kalaamay kocc ak nasaraan bu ñu noppee nag ma wëyal ak pagaay mbay ndax euh, maa ngi moom li ñu war a waxtaanee tey su ma noppee ci pagaay dara ba dara booloo jeex dootu leen ump ci moom maa leen wax lii. FM. voilà depuis ce matin yéen ngi ak ñun ci 99.4 donc euh, li ma leen di wax fim mu toll nii mooy ngeen daw gaaw dem euh, connecter ji ci Facebook bi euh, mën jakarlo ak pagay mbay mën jakarlo ak DJ Cool mën bok ci li ñi def parce que yéen itam seen ay commentaires daf ci am solo seen ay manam question itam dañ koy jël en considération jox ko pagay mom itam mu tontu ci alors ñu dellu si waat ak Pagaye Mbaye ci morceau bi nga xamante man dama né pagay morceau bi da melni ni dafa am lu ko naqare mu mu bëggoon ko rek réglé quoi. Mm-hmm. parce que euh, parce que gars yi dafa mel ni dañuy jël say bagages. Mm-hmm. ah te te buñ toogee ñu invité leen. Mm-hmm. ñu am succès. du ñu wax pagaay laa ko jëlee quoi. waaw euh, <laughs> waaw morceau bi nag euh, boo gisee li tax ma bind ko. Mm. woy ko mooy comme li nga wax rek. xam nga dafa am loo xam ne dama ko yéex a sax découvrir mm. mooy maanaam damay dama yàgg di créer ay affaires yoo xam ne su ma ko créer comme ñun yàlla dafa def ne dañuy nekk ci xew yeeg yenn affaires yi donc da nga koy génne yóbbu ko ci xew yi tëgg ko affaire yooyu mais boo ko tëggee wala dara da ngay jékki nga gis euh, kenn ku ko jël génne ko bu ko jëlee génne ko après xam nga après day day mujj moom it xam nga mooy li may wax rek nga génne sa mbir nit jël ko di ci di ci di ci dem fu nekk. Mm-hmm. te du toog sax ne lii diw ko moom. donc xam nga loolu dafa xaw a metti dëgg dëgg waaw lëg bu lekkee alam na ko gërëmee coy waaw xam nga ah, hmm. loolu dafa dafa doon loo xam ne dafa xaw a metti hmm. donc comme bu fekkee ne boo génnee dara boo demee ci xew yi di ko tëgg wala nga nga nga dem fenn rek di ko defantu da ngay xëy xëy gis keneen yor ko hmm. te fii moom li ñu xam mooy ku fësal absolument ku fësal rek lañ xam donc am na foo xam ne boo fa tolloo ñaata yoon ngay dégg ay ay artistes ñuy xuloo seen biir maa bari na fi ah polémique boobu du jeex xam nga mu noonu waaw te loolu tey jii nii dama dem ba jàng ne soo amatee œuvre wala benn affaire lii war mooy dugal studio nga enregistré ko génn ko protéger ko mhm. waaw yeah c'est important alors loolu moom moo indi euh, caw sa xiir. waaw léegi nag jël euh, xiir gi doon caw gaa yi quoi. waaw mais xam nga morso bi mooy li ma ci wax. Mm-hmm. dama ne ñi may use xam naa leen du ma seen ngaaka. Mm-hmm. wax dafa jot wax ak yéen dafa jot. lu ma génne ngeen yóbbu di ci comp di ci tedd. Mm-hmm. te du ngeen ma woo di ma sedd xam nga DJ Cool. tey maanaam yow li nga moom. nañ ko bàyyi ak yow. nañ ko bàyyi ak yow mm-hmm. mais man mënuma jël li nga moom di ci tedd te mënumaa toog sax ne lii di Cool ma ko moom mm, dëgg dëgg dafay xaw a metti mm-hmm. ñu doon ay ndaw nag euh, am fu ñu toll ci musique dara nekkul suñu ginnaaw mm-hmm. dañuy dem ak suñu moyen bopp donc kon am na ci lenn loo xam ne euh, des fois pour nga koy wax gars yi di ko dégg ñu xam ne yow sa œuvre li nga xam ne loo moom la donc yaa ngi gis ne ñu ngi la ci utiliser mais maanaam du du du question que ne yow nit ki amoo amoo amoo amoo fulay li la nit ñi di def mais mhm. musique moo am lu mu laaj mhm. musique dafa am lu mu laaj musique dafa laaj wéeruwaay musique dafa laaj euh, koom-koom ndax tey jii nii mooy li may wax rek studio yi boo fa waree dem di enregistrer wala leneen ak leneen ay wax rek mënul tax nga def ko mhm. waaw noonu la demee léegi nag day xaw a metti nga créer benn affaire toll ci war ko génne xëy-xëy gis keneen génne ko loolu moo tax ma ma def morso bii nii amna solo hein alors dama gis ci pagay mbay lo xamantene man bama koy euh, bama ci bayyi xel euh, warna def euh, plus de dix ans parce que ay ay 2007 la euh ben, ben, ben, proverbe la ko meuna tuddé xawma lan ñu ko bindon ci théâtre national Daniel Sorano di di ci wax affaire manam li jëm ci humble humble humilité alors da ñu bind l'humilité c'est la vertu de celui qui sait et qui sait qu'il lui reste à savoir c'est la vertu de celui qui réussit et qui accepte qu'aucune réussite dans ce monde ne serait un aboutissement mais un pas vers l'étape suivante xam ma parce que c'est dama ko gis ci yow pagaay humble euh, té am nga talent dama gis li ma li ma gis ci daam mhm. seen loolu laa gis ci pagaay mbay mhm. mu mel ni am nga maanaam soit looy roy ci daam mhm. seen wala bokk euh, lu leen lu ngeen duroole parce que ni muy ni muy taasoo ngay taasoo yéen a bokk sax ni ngi ni riimee seen i lan mooy sa lien ak daam seen waaw euh, daam xaar ñu jël kii ba noppi balaa ñu ñëw ci daam seen ba pour bañ ko téye ci ligne bi alors moom mi ngi ci biir yi moom itam allo moo gën bala maa coupé. ah bul yaa ngi ci biir. ah kon baax na. yaa ngi ci biir. <laughs> ayca nuyu naa leen. lay fay ñoo nii di doxal baax a baax a baax. maa ngi leen di ziar bu baax maa ngi delloo ziar bu wér. maa ngi delloo ziar. Pagaye kii sama seex la Ndeye Marie Balla Gaye. waaw <laughs> ah, <laughs> hmm. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi delloo ziar bu baax a baax Pagaye Mbaye. di kontaan bu baax la wax macha allah singal yi taarkalla. jërëjëf Ndeye yëpp am hmm. nga <laughs> morso boobu mbaadu mooy morso. <laughs> <laughs> waaw gis nga gis nga jëlal kon may naa la ko. waaw amin amin amin. amiin ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax te li am na solo dëgg la yow xam nga maa yow dañu xaw a bokk histoire yow dañoo juddoo Kaolack màggee Pikine dëgg la te ñun ñaa ñoo bokk fu ñu juddoo bokkee fu ñu màggee ndeysaan kon fa nekk ma oote dëgg la ndax xoole sama ngénte doom yow yaa ko tëgg ndeysaan ndeysaan eh, yow cool ak a seer affaire nag cool te weer ba àdduna yëpp daa daa xew <laughs> ak seer yi bagage xam ah. na ngénte sëñ Baara moo ko tëgg ah. koñu Aysa Badiane koñu Aysa Badiane waaw koñu Aysa war nga dëgg rappelé waaw dëgg yàlla dëgg moom dëgg la Pikine kase def wu baax de. parce que pagaay mmh, pagaay pagaay bëgg sañse te sañse yi seer na. da <laughs> leen fay fay yu baax def na macha allah kontaan nañ si yow. oui man eh, it kontaan naa ñun waa Pikine. ndeysaan yow dañ lay ñaanal rek. ndeysaan ñaanal bu baax a baax a baax. yàlla na si bi topp na. alaaw amiin ñëpp ndax moom ñu bëggee mun ko bëggee bu baax a baax a baax amiin amiin amiin amiin moom sama seex la ndax day wax si yow lu bëri kon xam naa ne. dëgg la yéen dëgg la yàlla leen boole yàlla na leen di yàlla gën a boole. waxal leen cat amiin ndax moom nit ku baax la. dëgg la moom moom ñëpp la fi nekkal jeune salaire yi moom. dëgg la dama naan ko ñu bëri ci yow laa ko xamee dama koy wax loolu. dëgg la léeg-léeg mu wax kenn mu ne ko waa pour kii kii kan la. ñu <laughs> bëri moom moo tax ma xam leen. billaay wallaay. dëgg la wallaay walaazim dëgg la. Eh, dëgg la ñu mel noonu dafa baax ci jeune talent yi dëgg la genre cool gi wax naa ko léegi dafa la man na dama bëgg nga génne ko nag moo entier yow laa ko sax dégg mosuma oote sax jeex jeex na ma ne ko jeex na jeex na <laughs> waaw kon jeex na eh, loolu dina neex pagaay <laughs> mbay de bés bés bu la riimalee cool dootoo ko def <laughs> bu la jàppalee cool ba ba ko non damaa bëgg mu defal ma loolu defal ma loolu loolu su boobaa mën na koy defal mën na ko jeex na incha allah waaw eh, damaa bëgg buy amin incha allah noonu lay demee de waaw noonu lay demee incha allah yal <laughs> eh. Marie Balla Gaye la woon doon ñu woowee foofu ci diwaanu HLM. alors maa ngi woon ak yow ci euh, say relation ak. Euh, Dame Sène Dame waaw. Hmm. Euh, Dame nag sama frère la. Hmm. yàlla moo dogal moom ñoo bokk sama deret la. Hmm. man Dame Sène ak Papa Ndiaye Coppet. ñun ñoo bokk même famille ok waaw même famille yàlla dogal nag euh, daam xam naa li tax yàlla li tax muy boole ay doomu aadama. Mm. Euh, dafay nit koo xam ne dafa ma bëgg. Mhm. ba ma yëg ne kii daf ma bëgg. donc maa ngi profité di ko nuyu mi ngi bitim réew. Mhm. donc maa ngi koy nuyu bu baax a baax. daam yàgg na bitim réew de kañ lay ñibbisi. léegi mu ñëw nag maa ngi ko seen sikkim yaa nga sëq mu mel nii. <laughs> gaynde xam nga dafa ne ci liggéey bi xam naa léegi mu ñëw incha allah. démb mhm. rek mi ngi may woo ndeysaan. donc di wax ne bon moom dafay nit boo xam ne. munul dugg Dakar te du ñëw sama kër. Hmm. te DJ Cool nit nag bu la yëgee am fu mu àgg ci yow. rek moom na la dëgg la donc euh, maa ngi koy nuyu. Hmm. Euh, di kontaan ci moom bu baax a baax a hmm. baax di wax ne. Euh, xëy na tamit li tax yàlla am lu mu def sunu diggante. ak bagage yu ñu bokk. donc day dëgg rek moo tax mu demee noonu. waaw. ok dafa ñëw naturellement. quoi mais du loo xam ne da koy roy ci moom. ou bien moom mu koy roy ci yow. man man man yi lu may def rek. day hmm. ñëw naturellement. waaw ndax xam nga nit moom. roy dunduroog piir hmm. te tey daam seen ku nekk xam ne ne mi ngeek ay bagage yoo xam ne daam daa waaw dafa doy waar macha <laughs> allah dafay nit koo xam ne mi ngeek ay bagage yoo xam ne hmm. euh, munoo ko roy ba dàq li muy def donc euh, lii yoon rek mooy euh, tey jii nii yow nga indi sa couleur bopp waaw man sama yàlla dafa dogal ne dama yor sama couleur bopp mais tous yooyu tous boobu yéen ñaar rek la ko fi yàlla defal ah yéen li Sénégal di bari bari waykat yow ak Dame Sène rek yéen fi am tous boobu noonu dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la loolu moom euh, yàlla def na ko mm. donc euh, am naa ci mbégte daal ndax moom nit ku baax la mm. <laughs> waaw am na solo alors euh, sànq yaa ngi ma doon brossé na ci titre boobu nga way tuddee ko ragaluma loolu moom itam mu nekk ko maanaam terme bu bari polémique Mm-hmm. ah da ngay dégg kenn ku ne di wax ragaluma loolu ragaluma mm-hmm. loolu mm-hmm. mu dellu si ci li nga doon wax sànq est-ce que euh, euh, bii pagaay mbayee ko moom waaw parce que ñu koy wax bari na koo wax mu ne ragaluma loolu waa gis nga noonu la demee dañuy déglu way wi ngeen dégg pagaay mbay ci beneen style bi mu génn ak diversité musicale bi nga xamante ne pagaay au fur et à mesure mi ngi koy indi ci ay euh, tubam ani pabi mom pagay mbay lay waatee paa bi moom bu doxan kat barki rasulullahi bu gisé doxan kat xelmi ci pagay mbay lay dem parce que pagay deugur na fit pagay lakalé na ndax pagay japp dom jambour ji di lambar lambar ak mom rek ci dekk bi bi rafetul tamit nee du moko may ndax man wala lol nak yag na ci jamono de man mii di wax ak yow mës na maa daal man. man man mës naa bëgg benn xale bu jigéen. am na du ma ko may parce que sama yaay géwél la. xaw ma daf maa xas xaw ma daf maa tagg waaye nag sant yàlla ndax léegi man ci wax ci yëfi géwél laay tedd. ndax damay wax ñu may fay. ko defati bàjjo bi moo koy faj. waaw moom nay def fu mu gestu rek seen pagaay may ànd ak doom ji di lambar lambar. waaw di jeex dara du ko fay. ah mel ni pànk xale yi deen pànk mel ni pagaay. léegi paa yi bu seeni pagaay ànd ak xale bi bras dessus bras dessous mu naan pagaay c'est pas la peine quoi non booy bi day déconné quoi c'est un wuyu. pagaay bàkki yi sa biir kii ku koy tëgg. bàkki maa koy tëgg. man daal jaaxal nga ma pagaay mbay pagaay mbay bàkki yaa koy tëgg pagaay yaay way way wi pagaay yaay taas taasub yaay rab rab bi <laughs> ah pagaay léegi yow boo ko bëggee jàppee nii ndax gars yi dinañu am euh, lu ñu participer ci yow. <laughs> non. <laughs> non mais bagage yaa ngi gën a yaatu de. waaw mais xam nga rek mooy li may wax damay liggéey rek. damay mm. liggéey damay liggéey damay fas yéene xam nga mooy li ma la wax rek lépp liggéey la. Mm. tey jii nii day am fu mu toll xam nga. day laaj euh, li ngay def. Mm. donc nga maîtriser lépp quoi loolu tamit am na ci solo. Mm-hmm. du càgganu ne li may def tamit bëgguma yaatal ko ba mu yaatu wala ma jël place ñëpp. Mm. mais tey musique mën nañ la soxla ci côté bi. absolument suba soxla ci côté bee. absolument donc loolu loolu laay liggéey. gis naa ci morceau bi nga adopté ci style nigérian bi. waaw waaw waaw waaw waaw waaw. loolu tam lu bees peq la ci pagaay. waaw xam nga xam nga DJ Cool musique amul frontière. Mhm. te tey jii nii nii nii. laay yuusoo ko waaw musique amul frontière. Mhm. te tey yàlla dafa dogal ne ay ndaw lañ mooy li ma lay wax nañ bàyyi mënul nekk. Mhm. pourquoi pas mën na nekk rythme yi ñuy wax ne mënuñu leen boole mun nañ leen boole muy neex. te bu ñu leen boolee. Mhm. nit ñi dañ koy déglu dañuy xam ne lii ñaari rythme yoo xam ne boole nañ leen mu neex la. absolument waaw man nag euh, mooy li ma la wax rek yàlla moo dogal sama musique moom lu ma may bu subaa bu ma waree def mi euh, morceau boo xam ne reggae lay doon. Mhm. dama koy def reggae boole ci li ma ci war a boole su ma waree def beneen morceau boo xam ne afrobeat lay doon noonu laa koy defee. Mhm. donc teewul euh, ñun li ñu moom mi ngi ci ñun ba tey. Mhm. ndax euh, ku nekk xam na ne euh, mbalax mhm. loolu ñun ñoo ko moom suñu mbir la mhm. mais nag euh, day laaj li nga xam ne ñun moomuñu ko des fois ñu jéggaani dem uti ko pour mun koo booleeg lu ñu am xam nga mun naa euh, gis naa ni machallah, allah inspiration bi moom yaatu na. Mm. waaye est-ce que mën nañoo xam lan mooy sa ay sources d'inspiration. Mm. lan mooy gën di la euh, motiver en général euh, ci yi ngay génnee nii ndax da ngay mm. déglu yeneen style de musique. moo lay permettre ngay am réalisation yu ni mel. ou bien ndax naturellement lay ñëwee. waaw damay déglu yeneen musique nak man damay déglu ay musique gu nigérien yi ndax américain yi tamit dama leen di déglu. c'est parce que Euh, lu neex rek dafa neex. Mm-hmm. te tey jii nii maanaam am na ci lenn loo xam ne ay ngéwéle ci doon woykat nga ngéwéle wala nga doon taasukat ngéwéle mm-hmm. wala tëggkat ngéwéle donc yooyu mi ngi ci américain yi. Mm-hmm. des fois da ngay déglu ay mélodie yoo xam ne ci ñoom boo ko dégloo. Euh, dafay dugg sa biir xol bi ba yow <laughs> dafay am loo yëkk. donc euh, looloo tax nag des fois damay xool ci seen bagage. plus que ñun li ñu moom bu ma bu may déglu seeni affaire damay am leneen. Mhm. damay am leneen lu bokkul ak man li ma am. Hmm. donc moo tax euh, du ma yem ci lool rek. donc euh, des fois sax damay bëgg dem ci yeneen frontière mhm. ndax di jëkkul musique mooy li ma la wax rek musique euh, amul frontière mhm. te boo ko utalee frontière rek mooy yow tëj nga sa bopp absolument fii laa yem xam nga te waroo fii laa yem indo bi sax li muy woy war nga koo mën a jël xam nga déglu ko def ci ben affaire mu génn yëngal bula yobul la sax foo yaakaarul mhm. woon ah, wa loolu lépp lu mën a nekk la tout à fait donc kon moo tax damay mhm. déglu ñëpp mhm. yeah ndanan bu mag mi ngi lay deglu di lu li ngay def euh, mm. Soriba euh mi ngi lay nuyu euh, mm. donc ñing koy jajeufal bu baax sori ba euh, di lu and bi ak mom ci King FM ñu ngi ak pagay mbay fi ci King bege, donc deg ngeen maanaam yu am solo yi nga xamante mom pagai Pagaye waxtaane nañ ko fi donc ñu ngi ba legi bala may ñew ci nay neex parce que nay neex mom mm. moy fimne nii nag jamono ji li yëngal réew mi jamono ji ah, nay neex ak fecc nay neex neex na feccam neex na wayam neex na pagaay mi ko moom daal mi ngi noonu mais mais mais am na leneen loo xamante ne euh, tey euh, pagaay yi yaa ngi koy euh, yaa ngi ci évoluer ci sa biir art yombul mm-hmm. mooy te yaa ngi joué lu bari en live mm-hmm. té lolou bokul ci li li li yomb ci ci ci fi jamono toll parce que il faut nga am ben cote de popularité bi am ben public bi mm. pour mën tout le temps ngay woote ay soirée mm. c'est-à-dire lan moy euh, manam euh, secret pagay mm. ba ba tax nga meuna réussir di dajale nit ñi ci ay boîte de nuit différentes mm-hmm. waaw ma ngi profité di sori ba sama frère di wax né kontaan naa ci mom frère kontaan naa bu baax waaw euh lolou nak liko waral euh dama koy gërëmee sama sopé yi yi mm-hmm. ndax pagaay fi mu ne moomatul boppam yàlla dogal na ne pikin laa dëkk ñu bëgg ma nag fu mm-hmm. moo jugee ñu jug mais pagaay tey foo dem am na ay soppe foofu mm-hmm. donc su ma wootee fépp la ma sama soppe di fekk donc euh, loolu nag Euh, dama koy delloowaat soppe yi rek ndax xam nga DJ Cool liñ naan euh, dooley wéykat bi mooy public bi. doole dooley jën ndox la mais dooley wéykat bi public la. Mm-hmm. donc euh, su fekkoon ne su ma joué ñoom du ñu ñëw. donc dina xaw a metti nag nga ne da ngay continuer ay soirée ndax mm-hmm. booy joué sa public moo tax ngay joué. Mm-hmm. donc loolu nag xam naa ne. cofeel gu ñu am ci man la rek. soirée yi mi ngi rentable. parce que looy def dëgg-dëgg di ko continuer mooy mi ngi neex. yaa ngi mos comme comme ko yaa maa ngi joué fi nga xam ne mooy Jat Café. Jat Café xam nga tous les mercredis maa ngi fay joué plus euh, samay événement yoo xam ne des fois dama koy organiser. Mm. comme lu ci mel ni le 17 bii di ñëw incha allah bu ñu jullee ba pare. Mm. donc ñu ngi yëngu leen bu mag bu ñu war a def foofu. Mm-hmm. lendemain julli ji nag ku ne xam ne ne dañuy def li nga xam ne moom mooy benn retrouvaille boo xam ne xawaare la. Mm-hmm. fu ne ñi di jugee. Mhm. donc et puis Inch'Allah mangi watch anniversaire. di wax ne nañ ñu ñaanal incha allah. Mm-hmm. donc ñi ngi ci xam naa bientôt dinañ xam date bi incha allah. Mm-hmm. donc euh, waaw ñu bàyyi ñu xel bu baax a baax. Mm-hmm. di wax ne lépp rek soppee ñoo tax ñu koy def. alkaati maa fekkee la bëgg. te man mii maa fekkee ay publicité maa koy defar euh, fu ne fu ne macha allah daf fay tëgg. Euh, Pikine boîte ba ne buntu Pikine. Kizito Kizito am na beneen bu nekkaat ca biir. waaw waaw ñoom Ravin ñoom Kizito. ba ba prestige ca Thiès. waaw dafay dem. waaw waxuma la ay jet café nag ay king ay ay king karaoke. man daal man fii pagaay jaaxal. di nuyu waa Gàmbi <laughs> tamit <laughs> maa leen di nuyu bu baax. macha allah dem nañ fa waaw ñoom ñu ñu waaw nuyu naa waa Gàmbi. bu baax yàlla yàlla xeeb dolli anniversaire yi mi ngi ko tàmbali comme ni ñu ko waxee woon sànq ci ay tànn béer. ay mm. programme tànn béer. léegi nag ay programme événement la bu mag boo xamante ne pagaay da koy def. Mm. Euh, bii la yoon est-ce que mën nañu xam fan nga ko bëgg defee. waa incha allah euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi xool ay place yoo xam ne incha soraano waaw yàlla buñ ko ragal non incha allah billahi mën nañ ko waa Kaolack ñëwee waa pikin ñëw non ñu feesal soraano yow kay man ragaluma loolu incha allah <laughs> yaa ko way de yaa ko <laughs> léegi man nay neex moom laa leen di tàggoo mm. euh, parce que quatorze jot na maa ngi sax lekk ci heure mm. oli bi parce que tellement que émission bi dafa vivante ba euh, ma heure bi raw na ma léegi euh, li ma bëggoon maanaam pour que ñu jeexalee ko mm. mooy nay neex mii nga moom neex na ba noppi. Mm-hmm. dëgg neex yàlla. Euh, digganteem ak sa single yi. Mm-hmm. dafa jege lool. Mm-hmm. waaye bi nga ñëwee itam. da ngaa génnaat feneen fuñ la foogewul woon. dëgg la pagaay lanati la. waaw nay neex dafa war a neex. neex na de. daa neex na. ma ne ko daa war a neex. non son bi neex na mi ngi ngeen ko deful ni ko yàlla def. nay neex lii. <laughs> morceau bi li ma ci neex mooy dafa neexee bajantu yàlla may ñëw bu ñu la defee lu naqari koo manifesté wu tegal morceau bi rek di bajantu di def sa yëfu reewande di waneen damaa mere yàlla ndeysaan may eh yàlla may ñëw boo ko ñaanee mu may la jamono ji ñu nekk jaaxal na ma hmm. buur bi da lay bindee nu ko neex ñu bañal la ko eh. nit ki ko di ko yàlla def mu noppal leen waaye bu ngeen ko deful li ko yàlla def bagaay jaaxal leen buur yàlla may ñu yàlla may ñu buur yàlla may ñu yàlla may ñu buur yàlla may ñu yàlla président ati ñu moom Pagaye Mbaye bu ngeen gëstoo euh, enfance am ba muy nekk xale xale bu lët la woon ku nekk rek na nga meloon sa gone boo màggee noonu rek ngay doxee Pagaye ku lët la woon léegi damaa bëgg ñu ñëw ci nay neex comme temps bi ñëwal yow Badara Ndiaye yaay borom Espagne eh, champion marocain fi mu ne àdduna bi yëpp ñu ngi ñuy seetaan à travers Facebook ak site internet bi ak Instagram léegi dañ leen di wan ni ñuy feccee nay neex ñëw leen morceau baa ngi nii euh, nay neex fi mu toll nii nag euh, fii réew mi toll morceau bii mooy lëmbe réew mi euh, Pagaye mbay moo nekkoon sunu invité àndoon ak moom fii ci King FM c'est vrai que doyaluñu ah doyaluñu te li ñu waroon waxtaanee itam jeexul waaye li ci des man maa koy mottali ak yéen ndax xam ngeen ni man Pagaye fii ma koy yëg du ko wàcc <laughs> ko wàcc ci yàlla te liñ liñ fi waxul dinaa leen ko waxal jaajëf aja lan mooy kàddu gu mujj gi ngay tàggoo gars yi en attendant ñu joxante waat rendez-vous incha allah mhm. waaw li may tàggatoo mooy DJ Cool maa ngi lay nuyu di kontaan nag bu baax a baax di nuyu waa kër gi yëpp mhm. di kontaan ci ñoom donc di nuyu sama soppe rawatina waa Pikine di nuyu mhm. waa Kaolack ba ma mhm. juddoo donc maa ngi nuyu tamit sama staff

man nak amaguma chance. li mm. coow li bari bari li mi doon sama xarit. amaguma chance ñew soirée. ah da nga wara a de. <laughs> te nak lu mu yeg lu mu xewle mako yegle wa waaw barke Serigne Saliou. <laughs> mercredi bi ma dina ñew jeexna na mercredi bi da ngay jékki-jékki seen ma ci kaw scène bi. kon sama invité inshallah yow la. <laughs> jeex na ay ayca merci beaucoup pagay Mbaye moo nekkoon sunu invité ñu ngi jéggalu óolu bi ah, c'est mon frère lui c'est mon frère. wàcca noo. wan wan wan bamba. Kirimba, mbaq kirimba, kirimba, kirimba, mbaq keng keng il est là le phénoménal Oli Mon moom mooy ñëw les rap jolof moo raw euh, fii ci King FM programme bi dafay continuer juste après vous aurez Exidex euh, borom Ndakaaru Mon itam bu ñëwee euh, daal di ubbi fukki pinc yeeg ñaar def ay façon ciao bye et à demain